أزالي مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليم يميني وعقل بزول يا مليك بالعائسة بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله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 إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تلك كل الله يا خالق الخلق لغما بادم بالبر والسبي رلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سن وخند لي الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو نلمك يا الله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 mi nga xamante depuis njaal benn université ba léegi ñu ngi taxaw di ñu assister ci li feeñ ak ci li nëbb ñoom it ñu leen di sant bu baax a baax a baax waññeeku nag jëlaat euh, euh, cant gi Abdou Lahad mi nga président directeur général bu Touba Matériaux nekk un ancien opérateur économique nekkit le maire de la ville de Touba mu nekk responsabilité yoo xamante ni ah wax dëgg yàlla état Sénégal jox na ko ko banque mondiale jox ko ko kon tey jii bu sëriñ sur Bassirou Mbacké jëlaatee responsabilité yooyu ak confiance boobule tegaat ko ci kawam ah tax na ba nga xamante ni ah depuis booba ba léegi mën nañ ni depuis deux mille dix-neuf ba léegi amatul nelaw amatul toogaay ñun ñii fi nekk ak moom it am na lu ñu ci xam nañ daan liggéey bu njëkk bokkut ak ni ñuy liggéeyee léegi. parce que nee na lii ko sëñ bi sas nekk na loo xamante ni moo ko gënal lépp lu mu mës a am ci wàllu liggéey ci àdduna bi ba tax na donc euh, muy guddi muy bëccëg mi ngi ci te it aussi ñu nit mi ngi ñaax ci loolu defloon nañu ay planning defloon nañu ay mm, méthodologie defloon nañu ay euh, euh, situation de travaux yoo xamante ni yëpp dañ ko étayer par ay plan d'action yoo xamante ni ressources humaines bit aussi euh, bu mat euh, teg na ci ci bir loolu it nag mu nek lo xamanteni ah wax deug yalla euh, dafa jéggani matériel yu bari yo xamanteni ci walu liggéey bi le jëm yi jotone nañ ko wax waye du ñak ñu am luñ ci bamtu lu jëm ni ci centrale à béton ak lu jëm ci pompe à béton ak lu jëm ci logistique bi nga xamanteni mo ci war ba ci laboratoire bi nga xamanteni moko permettre bureau de contrôle international bi ñuy wax SCAC ah mëna def liggéeyam te du sonn wala du fi déplacer wu di dem Dakar di dellusiwaat ñuy santit nag euh, Mam Thierno Mbacke mi nga xamante ni moom mooy coordinateur des travaux bi nga xamante ni moom ah ci wàllu maître d'ouvrage moom la ñu jël responsabilité yi jox ko ko ginnaaw Serigne Bass Abdou Khadre di santit nag les maîtres d'œuvre yi nga xamante ni ah kii di euh, Thiaw Kanji ah ak Ibrahima Niang ñi nga xamante ni ñoom ñooy architecte yi ah ñoom it ñu leen di sant tey ah di santaat ñi nga xamante ni topp nañ seen ginnaaw. ginnaaw loolu nag ah ñu def benn résumé bu gàtt rek pour di wane ni taalibe yi lépp loo xamante ni ba ci man mi joxe woon nañ ko gis naa ni sëriñ Serigne Mountakha Bassirou def na lu ko ëpp ci chantier bi. kii nga xamante ni mooy Abdou Lahad Ka lépp loo xamante ni jëlee na ko ci chantier bi ci sëriñ bi man am naa lu ma leer nit def na fi lu ko ëpp parce que jëlal nañu ay décompte ci yenen chantier yëpp dougal ko fi parce que xamnañ ni fi mom lu fi way def du rer parce que sëriñ bi joxon nako ndigal yo xamanteni mi ngi ci sukkandiku ba fi may wax ak yéen lu toll ci ñaari atangi ni yo xamanteni ku fi liggéey do xaar fin du mois fukki fan ak juróom yu ne ñu calculer lu fi way am jox nako amna ci liggéey spécifique yo xamanteni liggéey yu metti la yo xamanteni liggéey doole la yoyu mom nëgës xalas la ku wàcc ñu fay la kon nak yooyu yëpp ñu koy sante Abdou mi nga xamanteni ah, wax deug yalla amul guddii amul bëccëg ba nga xamanteni instant bi ñu toll nii ah, mm, situation bi dafa toll fo xamanteni ci ñetti zone yi nga xamanteni Touba matériel mi ngi fi intervenir ñetti zone yi di administration di majalis di UFR science islamique euh, et langue arabe nekk 9 euh, bâtiments au total ah ay bâtiment la yoo xamante ni au total ñu ngi ci vingt six mille sept cent mètres carrés ci biir loolu nag ah, ci veyu màggal gi nga xamante ni bi màggal gi jub si sëñ Mountakha ñëw na fi ah jël jël nañu ñetti bâtiment yoo xamante ni dañoo yëkkati caabi yee jox ko ñetti bâtiment yooyu ñu ko jox caabi yi moom mooy UFR science islamique et langue arabe ah ñaari bâtiment yoo xamante ni benn bu ci nekk deux mille cent mètres carrés la ak majalis grand modèle bi nga xamante ni quatre mille huit cent mètres carrés la bâtiment yooyu bi ñu ko joxee caabi it aussi ah, liñ naan euh, kër du pare parce que euh, it euh, lu fas-fas daw nga làbbali parce que ginnaaw bi ñu ko joxee caabi yit ah amul umpule que ni kii di sëñ Badiou nga xamante ni moom mooy recteur bi nga xamante ni moo yore service pédagogique bi ñoom mën nañoo commencer seen année scolaire ci ren jii puisque ñetti bâtiment yooyu dinañ ko ci dolli yeneen ñaari batiment mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñetti bâtiment yi ñu ko jox mooy que ni ñu ko koy jox boobu fekk na forme de pente yi ah moom la ñu àggalewul woon ak euh, étanchéité ba parce que loolu pour nawet bi ñëw ëllëg donc loolu moom lañ doon àggale si batiment yi ak ay retouches yu peinture ah ak ay retouches yu euh, euh, pas plinthe mais plutôt ay retouches yu yi nga xamante ni dañuy sóoraale ah personne à mobilité réduite yi maanaam mooy ñi nga xamante ni dafa am lu ñu manqué tey toog ci pousse-pousse pour ñu mën a yéeg ci bâtiment yi ak it pour ñu mën a dem ci toilette yi yooyu yëpp dañ ko doon sóoraale mu nekk ay détails yu ndaw ndawaan beneen bu mujj bi nag mooy que ni fii dafa nekk assainissement général mais ci biir assainissement bi nag comme bâtiment yëpp pareeguñu donc assainissement boobu demagul donc il fallait ñu trouver solution pour xamante le bâtiment bu nekk ñu defal ko une fosse individuelle pour dina permettre utilisation yi man ko euh, utilisateurs yi utiliser toilettes en attendant que nous def égout yi nga xamante ni moom moo nous euh, devons, bâtiment kon instant bi toll en tant que des ingénieurs des techniciens des chefs de chantier ak des responsables hein, fu sur le terrain ñi ngi sant Abdou Lahad Ka ci position maanaam liggéey bu toll ni di université boo xamante ni université euh, Cheikh Ahmed bambala ah kii di sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke am confiance jox ko wax dëgg yàlla jël na ko teg ko fi mu ko war a teg parce que tey jii ñi nga xamante ni ñoo fi njëkk a def estage

Ah, mi nga xamante ne coordonnatrice générale bi en la personne de madame Diop mi nga xamante ne mooy yore service de communication pas plus tard que semaine passée rek ñëw nañ fi te bañ fi ñëwee toog nañu ak Abdoulahat Ka ak personnel bi toog ak su euh, ak stagiaires

plus tard que semaine bi rek 22 personnes yo xamanteni ministère de l'Emploi, euh, en la personne de la direction ah, donc l'État sénégalais jël na 22 personnes yo xamanteni indi nako fi ah, aussi ah, ah mu nekk benn partenariat bo xamanteni convention la buñu def mu nek une convention gagnant gagnant entreprise bi man ci gis bopom ministère man ci gis bopom état bi gis ci bopom it aussi employé yi nga xamanteni moy soit euh, employé yi nga xamanteni ni dañu amul won liguey te ñu dugal leen ci wala ñi nga xamanteni dañuy doog a génn ñu jël len stage ak ñi doog a génn ñu jël len comme emploi au moins pour une durée de deux ans kon yooyu yëpp ñi nga sante nak yéen ñi nga xamanteni ni euh ay académie minam bi nga xamanteni tax ngeen ba nga xamanteni lépp luy suñu doléance wala lépp lo xamanteni moy li nga xamanteni moy li fi xew ak lépp lo xamanteni mom moom la taalibe yi bëgg xam te it aussi talibé bo xamanteni yëkëti nga sa dëramit aussi joxe ko mu nekk addé bo xamanteni université bi mo taxit jàpp leen ni Serigne muntaha basirou def na fi lo xamanteni actuellement nangul sax ñu wax ko ci lo xamanteni ci financement la parce que lépp luñ fi def budé lu baax mënu lu gën la bëgg vous faites qu'un loo xamante ñi ngi sikki sàkk mu ni dindi leen wala défar leen ma lu bax ba tay ji instant biñ ñu toll amu fi ben œuvre bo xamante bala ñukoy def ah, du am contrôle du am autorisation bo xamante ni et permettre soit autorisation de couler wala mu nekk ben fiche technique bu ñu voilà wala ñu indi échantillon d'un xamante dañ koy xol ba ñepp saytu ko ñu bok ci djubo xam que li buñ ko fi défé dina am durabilité te dina nekk ci li nga xamante ci dernière génération yi la kon nak tey jii ñi ngi santaat euh, Abdou Lahad Ka bi nga xamante ni ci en euh, joxe na ñetti bâtiment ci màggal gi fas yéene joxewaat yeneen ñaari bâtiment ci fan yu néew muy juróomi bâtiment yoo xamante ni dina ko joxe ci juróom-ñaari ci juróom-ñeenti bâtiment yi mu des fi ñaari bâtiment yoo xamante ni lu mel ni restaurant bi nga xamante ni moom it prévoir nañu pour joxe ko mu des fi donc ñaari bâtiment yoo xamante ni benn bi euh, bibliothèque lay doon bi ci des amphithéâtre bi lay doon rectorat bi nga xamante nag mooy administration bi nga xamante ne mooy administration université bi boobu moom gros œuvre am nekk na cent pour cent mais dafa des nag ay Euh, seconde œuvre boo xamante ni lu jëm ci nga maintenir ailleurs GTB yi nga xamante ni euh, gestion technique ou bâtiment yi ak yi nga vidéo conférence yi la ak yooyu moom mooy li nga xamante ni moo des ak ay murido yo yoo dañ ko def yo xamante dañ ko ci ajouté ginnaaw mais sinon kon bâtiment beaucoup doon na ci de te gis na nit aussi bu ma gisee euh, Gabon d'un accord parce que aussi li communication service communication dafa jafe.